sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar di ko teg ci loxo sunu xalif général sunu wayjur sunu kilifa sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke sëriñ Tuuba di ñaan nga jottali ñu ziyaara boobu ak nuyoo yooyu ci njabootu Seexul Xadim yépp yëpp di fi teew di feddalewaat sunu taalibe ci sabet di waxaat sama mbégte ak cant gu may sant suñu borom bi mu ma mayee ma ñëwaat fekk la fii ci tuuba ci waajal bés bu màgg bi di màggal sëñ Touba taxawal ngir sant boromam ak ngir ñu santale ko boromam ma am nag mbégte si di la fi fekk moo tax ñu ñaan yàlla yal nanga fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yàgg di la fi fekk di la jàppale it ci sumb bi nga xam ne yaa ngi ci dox dox yu am solo lu bare la maa ngi seede askan wi yëpp ne sëñ Muntaxa bi nu yàlla boolee ba tey lu jiitu may jot ci réew mi te njaareem la woon ma ñëw fekk ko ci ab fulk mu won ma ab ñeewantel won ma ay ñaan ñaanal ma ba màggal gi jiitu muy toog ci xilaafa gi ma ñëw fii ñu julleendoo ci kër sëñ Touba. ci biir néeg bi nga ne ma bul xool nit ñi li ñuy def yow sëriñ bi ngay liggéeyal te ku liggéeyal sëriñ bi dana la fay kon man ci loolu rek laa nekk li may def Touba xaaruma ci cant xaaruma ci ngërëm ndax la mu wax ci loolu laa nekk te may seede yi ne mosuma dënk benn soxla bu jëm ci moom mi wala ci njabootam benn yoon lépp si dëkk bi la ak ci askan wi kilifa gu mel noonu nag buñ ko amee dañuy ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg lool ndax dundam njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci lislaam bi njëriñ la ci yoon bi man de awma sa pay ndax xam naa li nga ma ëmbal ci yéene xam naa ko boo waxul sax man xam naa fi nga féete te cofeel gi nga am ci man mënuma la ko fay kon ñu en tant que jullit ak taalibe li ñu man rek mooy ñaan yàlla mu la fi nga yàgg fi lool ànd ak te xam ni lépp lu ma war a def ci ay bi ma suñu borom jox ci Touba danaa continuer di ko def ndax wareef laa ko def ci sama bopp liggéeyal sëriñ bi it laa ko def moo tax euh, daray àdduna du tere du changer loolu rawatina si jëmm ji te nga wane ko mu mot sëkk waaw ah, ren nag ñëw nañu si màggal goo xam ne ci digg nawet la am muy nawet bu yàlla def ndox mu bari lool mu ñëw ay jafe-jafe ay ngaañ yu bare waaye ñu sant yàlla ndax bu ñu dem nawet dañu ñaan yàlla may ñu ndox xëy na dañu ñaan lor bi bañ a bare waaye dañu toll si àdduna fu changement climatique yi taxee gis ngeen li xew ci réew yëpp Pakistan ci dëkk yu mag fu ne ndox maa ngi waame di yàq donc ñun itam am nañu si ay jafe-jafe rawatina dëkk bu mag mel ni Touba ak Ndakaaru ndax ñaari dëkk yooyu ñoo gën a am jafe-jafe ci wàllu ndox mi ah, ba tax na bi waxee problème mu forage euh, ndox mi amoon di bal di génn si kër yi ñu defaraat beneen programme si urgence di def ay forage di ko pomper waaye yàlla def nawet bi tam ñëw fekk si loolu waaye diggante daaw ren def nañ programme bu am solo bu toll si ñaar fukki milliards ak ñett pour yaatalaat euh, mband bi nga xam ne muy bassin bu Kër Ñang bi nga xam ne juróom benn station bu ñu pompé ndox foofu lañ koy yóbbu donc bu ndox mi bëree nag ba ëpp loolu moo doon indi muy débordé te comme Touba amul géej gu ñuy yóbbu ndox mi faaw ñu wut ay bërëb yu ñuy yóbbu ndox mi moo waraloon ñu dem ba ci Daaru Rahman am fu benn bassin bu mag boo xam ne ren bi ndox mi bëree déborde na ba dugg ci tool yi def beneen bassin bu jëm pof di loolu it liggéey nañ ko waaye xam nañ ne doyul ndax bu ndox baree ak dëkk bi ni mu toll laaj na ñu am beneen taxawaay moo waral ñu def bassin bu bees boo xam ne mu ngi ci kër kàbb juróom benn fukki hectare loolu mosul am ci senegal bassin boo xam ne juróom-benn fukki hectare la pour di taataan ndox mi ndox mi jóge Touba jaar Kër Ñang jaar Daaru Rahman jaar Pof di waaye itam ñu ubbi beneen bu bees boo xam ne moo nekk Kër Kàbb kon lii ay liggéey la liggéey nag dafa àndul ak wax waaw nit tam buy liggéey dañ ko war a encourager war a encourager waaw góor ndax mu gën a farlu ci liggéey gën a dolli waaye nag Sénégal tam ni mu bindoo ala kulli leen dañu nangu rek def yàlla wàccee waaye daal nga xam ne liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def fii si Touba ak ci Sénégal du si ci wàññi lenn loo xam ne euh, doomu aadama dina tax ndax lii sama ngëneel mooy ëllëg parce que boo yàlla di jëlee ñu xam ne fa ma indi réew mi moo sut foofu fa ma ko jëlee loolu rek laa ci wut ci ngërëm li des nag kenaan ku mën a ñëw mën nga mottali ak saa yu ko yàlla tudde kon sëñ bi maa ngi lay santaat bu baax forage itam yokkaat nañ si ñeent yu bees benn bi Daaru Xudóos la ak uh, Ngaabu ak uh, bobo boborel boroleel boroleel am na beneen tam boobu ak Matlabul Fawzayni boobu moom tàmbali na donc loolu yëpp dañ koy def rek ngir fi dëkk bi toll ak population bi dafa laaj dëgg-dëgg taxaw taxawu boobu tam mënul mënul arrêté parce que boo arrêté rek mu indi gàllankoor donc dañuy far di continuer toujours ci liggéey bi ngir euh, population yi ngir dëkk bu toll nii dëkk bu tedd dëkk Sëñ Tuubaa euh, ñu mën ko taxawu taxawaay taxaw bi war loolu ci laa nekk di la sant nag di la gërëm di la waxit it nga continuer di ñaanal Sénégal yàlla wàcce fi xéewal wàcce fi jàmm e, Sénégal jëm kanam loolu ci gàttal moo doon kàddu yi ma bëggoon yëkkati si turu réew mi yëpp nag ndax moo ñëwee tey dama indi ziara Sénégal yëpp mm-hmm. ci tànk boobu laa fi ñëwee e, di la ndokkali si bës bu màgg bi ñuy waajal muy màggal di la sant di la gërëm cant ak ngërëm goo xam ne amul àpp di la di ñaan suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi loolu ànd ak wér maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sa porte parole suñu Basiru di sant say rakk yi fi nekk ñoom ñëpp ak njabootu xadimul xadim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf président